daleen ak jàmm seen seen bi di NGTV Sénégal kii di professeur Iba Barry Camara di chercheur en droit daal dinay andi ay tontu ak i leeral ci lu sénégalais yu bëri di laaj te mooy ko ne bu fekkee ne kii di Barthélémy Dias ci procès bi mu war a amal la le 22 décembre en cassation moom ak kii di Ndiaga juuf bu fekkee ci li ni mel daa bañ a dem daal di teewee procès boobee ba pare ñu daal di koy teg ay daan ci mbir moomee te ci ginnaaw loolee. mu bañ a appliquer ndogal lu bàyyeekoo ci yoon ndax si li mel dinañ ko ci tëj kaso ndax si li mel dinañ jël ay biens wala ndax si li ni mel dina ci perte ay titres yuñ ko fal ci réew mii di Sénégal. si li ni mel lu si professeur Iba Barry Camara xamale moom mooy que ne kii di Barthélémy Dias ci procès bu war a jaar ci diggante moom ak Ndiaga Diouf te ñu war ko amal en cassation le 22 bi ñu jëm bu ko neexee mu daal di toog këram bañ a bouger centimètre daal di dem teew boobee. ndax ne foofee en réalité soxla ñu sax présence am foofee lu fa juge na ma amal moom mooy ñu daal di dëggal daan buñ tegoon ci ndoddam wala ñu daal di dàq daan buñ tegoon ci ndoddam ne ci procès boobee en cassation nag buñ jëlee daal di dëggal daan ñu daanoon kii di Barthélémy nañ Dias te mooy que ne daa war a jël 20 millions daal di koy jébbal famille bu Ndiaga Diouf ne ci li ni mel kii di Barthélémy Dias bu bañee amal li ni la ne kon yoon day diggal ñu daal di amal li ñu dippee processus de l'exécutoire forcé maanaam ñu xayma am amu Barthélémy Dias ba tolloog 20 millions ñu daal di koy jël par la force daal di koy jébbal fami Ndiaga Diouf ne ginnaaw loole tamit buñ daanee kii di Barthélémy Dias loolee du ko tee nekk maire ba tey ci réew mii di Sénégal loo tamit du ko tee mu daal di nekk candidat ci réew mii di Sénégal waaye loolee dina tax mu daal di ñàkk titre député bu fekkee dañ ko daan ci procès bu war a ci diggante moom ak kii di Ndiaga Diouf te si li ni mel ñu war koo amalaat vingt 22 décembre ci réew mii di Sénégal.